sëñ bi alors wéy ma da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon. allo oui. mooy sa maam sama doom ji jaram mbay jigéen loola mi mbay galas mooy seen baay waaye mami mooy seen yaay wuru xari jaaga xari ne mbo xari ci caam ay sama doom sama doom sama doom ne woon ndaxe mbaay wuru xari jaaga doko faale maama joore mbay kumba samba yaay jaloore doko mooy papa Aliou allo Fatou Mbaye daa dugg si ci sunu doom ñu kontaan ci moom te ñu neexul bay bi nag yaa ngi def ci bu baax tekk na waaye nag jaara boo jaaree bu ko foo ko def bay naa yi kii tubaab macha allah Thank you. waaw day bokk.